salaatu llazi fi kulli bisaarin wa fi safar amaani ala maahin maal mabsa wa safar aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salih lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di ak cant ak ngërëm ci sunu sëriñ sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Tuuba radiyallaahu anhu wa nafaana allahu bi barakaatihi ñu nekk ci ay fan yu tedd muy fani weeru safar te buñ ko tuddee xel yëpp dem ci ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci liggéey bu tedd bi mu liggéeyal boromam subhaanahu wa taala ba làq ci ngërëm booy sant yàlla ne ñëw leen sant la ma yàlla ndax loot naa ci sant ko mu mel ne nag Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 ñu am benn yoon wun jël ci màggal gi mooy euh, fukki mooy 18 kàngam mooy bis bu yàlla sàkk ñu ànd ak kenn ci borom xam-xam yi ne ci biir yoon wi te seen xam-xam dëppoog njàngalem sëriñ bi ak doxinu sëriñ bi ñu ñuy fàttali ci sëñ Tuubaa ak dundinam sëñ Tuubaa digganteem ak boroom subhaanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi sëñ bi ak i xasidaam sëñ Tuubaa ak ñi mu defar ak xes ak dëkk yu tedd yi mu loolu lépp nag ñu koy waxtaane di ko ànd ak ay borom xam-xam mu mel ni ñi ngi fii tey gaawaan euh, ci sëriñ Basiiru Siise di boroom xam-xam di jàmbaar ñu fas yéene ànd ak moom ci li ñuy wax ashukru te mooy sant gi nga xam ne moom la Sëñ waa woote ngir ñu santale ko boroomam te ku ne xam na ne cant doon na lu màgg bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe kon baat bi Sëñ Tuubaa taw muy baatu ak shukuru ndax mënoon naa digle geneen jaamu yàlla ci bis bi waaye daa digle ñu santale ko boroomam subhaanahu wa taala kon cant ko lañ fas yéene waxtaanee fas yéene ko ànd ak Sëriñ Basiru Siise incha allah ci kàttun yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu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 ashkuruhu shukra alladina waxadu wa abadu wa axlasu muzrashadu wa afdal alsalaati waltaslimi ala alshafii almuntaxa almaxduumi sayidina muhammadi wal ali maa sihaabihi kama xadimahu nafa wajcal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bokki asalaamiya tayfe asalaamiya FM di leen ziyaara lu bari di leen jox wàccuwaay bi leen sunu boroom jox nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ngi ciy jiital saaxibul fadila acheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raahu wa radiya anhu di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na guddal lool aw fanam te dolli ak wéram dolli ko ay ndam lim yéenee lëggeel ku tedd ki lépp yàlla na ko def ci sagoom te ànd kook njabootu sëñ bi ànd taalibe yi ànd ko jullit ñëpp ndax mbirum sëñ bi mbirum ñëpp di ñaanal xalifa maam Cheikh Ibrahim Fall gudd fan ak wér euh, it ak ndam yu yaatu ci ñi muy taxawoo la géeb Sëriñ Tuuba waaye borom Daaru Salaam ak gaawaan euh, di ñaan moom it xalifaam bi fi nekk ak njaboot gi ñëpp suñu borom teg leen loxo ak atti bii ñu nekk di atub sëñ Mouhamadul Moustapha Ceytu moom maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan moom it xalifaam bi fi nekk suñu borom teg ko loxo njaboot gi ñëpp di nuyu suñu wayjur alxaaji maxtar siisi ak suñu wayjur bu jigéen soxna day dumbe jënd caw ñoom suñu borom teg leen loxo teg ko njaboot gi ak bokk yëpp di nuyu ñëpp daal sëriñ Tamsir di leen ziyaara di leen dogal gant bu baax nag di rafet lu jéego yi ak liggéey bu tedd bii ngeen ci liggéey ci tasaare xam-xam di ko jaare ci ëttu sëriñ bi yaa koy shukran lakum ah, waaw bu ko defee comme thème Euh, ni ñu ko sàkk woon rek mooy cant cant nag bu ñu ko waxee euh, day loo xam ne lu màgg la waaye foo fekk ñu ne cant rek daa fekk am na lu ko jiitu ci xéewal comme ni nga xamee ne bu ñu nee muñ ak sabaru daa fekk am na lu ko jiitu laytaay ko ñaar di doon loo xam ne boo ko jàngatee ba ca biir aw naqar lay doon donte sabaru sax nag léeg-léegi des na ko indi ci yeneeni euh, mbir yoo xam ne amaana dana wuuteeg yañ daan miin waaye chukru moom foo ko fekk rek am na lu ko lal te la ko lal boo ko xoolee ba ca biir teraanga la joo xam ne yàlla da koo defal ab jaamam sëriñ bi nag sëriñ Touba radiyallahu taala anhu bi mu feeñee ni ko sëñ Muntaxa di waxee ba ni ñu ko noppee gis ci sunu gëti zahir néewul ci lu dul boroomam nekk ci boromam googu nag dafa doon loo xam ni eh, ni mu ko doon dundee dafa taroon lool ndax boromam daa xool ba gis ne kii mooy kii gën a woote woo ak sopp ma gën a woote woo sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di yëkk ci nag kon boo xam ne mosu koo kenn teg ko ko mm-hmm. natt boobu nag natt la boo xam ne ku ko yanu te àttanoo ko sag yàqule xaj na ca mm-hmm. ku ko yanu na eh, ku ko yanu nag te àttan ko ba yóbbu ko fa sof saa borom waxuma ne yow sax waaye mboolem koo bëgg mu jariñu tey ëllëg day jariñu hmm. mu bind wax ni sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafia li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi hmm. muy li sabab ma génn bàyyi sama njaboot bàyyi sama moomeel gi ñu xam hmm. di li nit di moom ci àddina amaana ay kër la ak i jumtukaay donte sëñ bi moom alalam lépp alxuraan rekk la ak ahadis mhm. ak la aju ca yooya moom la fi bàyyi moom nañ koy donte mhm. waaye moom meere zahiri yi li tax ma bàyyi lépp ak kër yi kër yi wéet teqale ko ak sama njaboot dal ma mhm. ak samay ñooñ muy bokk yeeg ñëpp nee na dara du sabab bi lu mooy suñ borom yàlla sëñ bi ko bari sutura la ndax ku ne xam ne tukki bi dafa am ñaari sabab am na sabab boo xam ne zahiriyan mbirum biti la am boo xam ne ba tëri ñeen mbirum biir la moom nag daa bàyyi zahir ci ndax boo duggee ci zahir ci di ci commentaire mm. amaana da nga ci indi yoo xam ne mënoon nay ñàkk mm-hmm. man nay yëngal réew mi it nag mm-hmm. waaye mu indi nag sabab bi nga xam ne bi la chaque ne buñ ca waxee mm-hmm. lépp ay tuuma la doon doon waaye du ay tuuma sax nag loo xam ne boromam la ko la ko jagleel du ay tuuma nag mm. waxil da maanaam lépp day doon loo xam ne da moomale boromam muy li sabab ma génn dem mooy yàlla ci boppam moo bëgg ma am ca moom daraja ndax daraja jooju nag mooy daraja ji ñëpp daan wër déedéet mhm. daraja jooju daraja la joo xam ne waroom xam-xam yenn yi dañuy wax ci wàllum baatil wala xaqiqa ni mhm. su la ko yàlla xasee jox bu addina bi yëpp maase woon di mooy yàlla yàlla jox na la sañ-sañ fa moom bu ëllëgee nga ne ko ne ñëpp dugg na te du la laaj lu tax mhm. bu ñëpp maase woon di topp seen borom nam gën a rafete gën a mate noonu yàlla may na la ci boppam ëllëg nga ne leen nañ dem këru safaan ga hmm. te du la laaj lu tax hmm. sëñ bi nag wutiwu ko woon ngir loolu wutiwu ko woon ngir loolu hmm. waaye da di daraja ju musta ku ko wuti ci jamonoom amaana la ko jiitu woon dan na raar sëñ bi nag jug ngir wuti loola moo tax mu ne ma am ci moom daraja jooju waaye nag ma doon koo xam ne damay rab mu sama aw nit alxawmu nag wax ju yaatu la dañuy wax sax ni alxawmu bu ñu ko waxee ci ñiy jàng njàngum français dañuy wax ne alxawmu est une nation maanaam xawma bu ñu ko waxee mooy benn xeet benn xeet xeet boobu nag duñ ne rek ñi ay séréer lañ wala ay wolof wala ay joolaa maanaam daanaka mën nga ne képp koo xam ne mm-hmm. mbégum suñ bisam mbéga rek yaa ngi ci biir xawma googu mm-hmm. waaye ma nekk koo xam ne damay doon liggéey euh, liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci foo xam ne tumuranke na lool ñu di ko fa liggéeyal ngay am sax ma na faa liggéeyal mm-hmm. dëkk bu ñuy wax bene daaw mi donte at daaw mi googu am na ñu koy tekkee na nen mooy di liggéey te sax ci liggéey ga faw waaye nag daaw mi googu daal gis nañ ne euh, wax ju logique la mm-hmm. daani rahimu inda daawami lahu bi ma aana ani tasawumi mm-hmm. te loolu lu lu lu lu wér la mm-hmm. léegi nag bi loolu amee nag mu dund ci ay tar-tar yu tar yoo xam ne amul sañ-sañu wàññe ne kan metti na ndax soo wanee na mett na day wane kon ne attanu ko te su ko attanul yàqu sëñ mm-hmm. bi yàlla teg na ko loxo ba du yàqule mukk mm-hmm. ci biir yoo loolu nag doxin woowu nag mm-hmm. yàlla di ko nattu di ko nattu ba nga xam ne nattu bi dem na ba jeex nag ñëm doon fule nattu ya teraanga di fay rek des mu di ko fule ay teraangam mu gis ne yàlla defal na ma tawféex yi sóobu ma ci yoon wu musta sóob kenn ci sama jamono ba addunay tukki du ci sóob kenn amaana la ko jiitu woon doon na raar mm-hmm. ndax mooy saxaaba yam bëggoon a bokk ca ñoom rek mm-hmm. ak seen kilifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mu ne ginnaaw yàlla defal na ma teraanga ju day nii mm-hmm. ci loo xam ne ay junni junni at nga ko waroon a liggéey amaana sax doo ko am amaana nga am ko ci ndimbalul yàlla ma liggéey ko ci diir si te moo ma jàppal sama tànk ba daanuwuma téyal ma sama xol takkal ma ko ba xol bi tiitu tiitaange guy tax ma saalit téyal ma xel mi it maanaam séñal ma ko ba xel mi maanaam awma lu ma cay xel yaar ci sama diggante moom ba muy wàññi dara ci sama doxin ba mu koy gàkkal kon yàlla moom amee naa ko cant yëmul ci sax loolu nga xam ne ndam li lépp mooma waaye mu walbatiku nag di ma terale teraanga ju day nii mu may terale ci sababu am ndam te ndam li mooma mu nekkoon cant gu mel nii wala boog mbir mu mel nii boobu. cant ga ca yàlla. Mhm. su dëgg dëgg dëgg man Ahmadul Xadim mhm. lottu naa ci. Mhm. ginnaaw lottu naa ci nag. ma bëggoon nag képp koo xam ne sama mbég sa mbég la mooy koo xam ne bii. bëgg nga bu ëllëgee añ bii ñu bokk ko maag maag yow xewloo. te amaana fii lay tàmbalee. su bis bi dikkee nga sant ma ci yàlla. na xam ku ne ak sa cantuk bopp. waaye nag kenn ku ne nag. war naa mën a delloo njukkal sëriñ bi ci santale ko yàlla ndax sëriñ bi liggéey bi liggéeyum ñëpp la loolu nag kon moo indi baatub cant gi ñu bëgg a waxtaan mm-hmm. euh, euh, euh, cant nag dafay nekk yaari cant da am cant goo xam ne cantuk xamdu la mm-hmm. am gu nekk cantuk shukru mm-hmm. alhamdu moom lañ jàng ci alxuraan mosuñoo gis aw saar wu tàmbalee ashukuru lillahi alamin te bu ko yàlla waxoon juumul waaye suñu borom it dafa maandu. te xam li muy wax. ba tax na alhamdulillahi rabbil alamin lay wax. alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja ak alhamdulillahi alladi hadana li hada alhamdulillahi alladi azhaba anna alxasan inna rabbana la gafurun shakur ak yu mel ni ki noonu ngir lan cantuk xamdu dafay xaraam ñu di ko jagleel nit amul kenn kuy nit koo xam ne sag sax yi dana yegg ci cant ko xam ñu sañ la ko cant mm-hmm. moo tax ci sax grammaire comme jàngkan nga macha allah doo dégg mukk ñuy wax nit mm-hmm. nan ko xamdan laka mm-hmm. déedéet shukran laka rek wala shukran laka wala shukran lakum ndax nga xam ne xamd moom yàlla rek ko jagoo waaye nag shukur tam yàllaa ko jagoo waaye ci mbaaxam ak yaatalam sédd na ci doomu aadama mu am lum ca moom moom la wax remerciement nit ki boo koy remercier te ko defee ci arab am nga sañ-sañ ni ko shukran laka donte alhamdu wa shukru maan mhm. lillahi li ñu ne ma maan lillahi nag mhm. mooy hamdu wax naa léegi yàllaa ko moom mhm. waaye shukru nag yàllaa ko moom waaye may na ci nit waaye nit la ko ca yàlla may mu sañ ko ca euh, jël loola it la ko waral yàlla ndax la tax xol sedd ba ba yi am buñ demee ci taw tawxiid xam ne lépp yàlla looloo tax ñu ne alhamdu wa shukru maan lillahi foofu nag euh, sëriñ Tamsir euh, sëñ Touba moom dafa wax ni. dañu hmm. ci santale boo ko neexoon nag moo am nu mu waxee noo xam ne boo ko neexee woon hmm. dana dana dana doy waar hmm, lool. ndax ñun li ñu gis mooy. képp ku yàlla jox teraanga te teraanga ja na nga dund ba jot ca boo moytuwul danga nga fayantoo. soo ko nangul maanaam boo ko nanguwul sax ay nit danañ la ca sóob. ñu la fayantool ndax liñ la teg. am na ñoo xam ne bu seeni pexe joyan doo mel nii mbaa doo am lii mm-hmm. loolu boo koy fàttaliku bu la yàlla dëgëralul mm-hmm. nga fayantu mm-hmm. moom sax wax na ko nee na ida dakartu dalika al mabita wa dalika al wa sabuta doonte am nañu wax beneen baat wa tasbita taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba anni al maahi saa bu ma fàttaliku wala ma daj ndakaaru ci mu fanaan tar gam tar ñu dima ko teg mhm. ngir bëgg goo bëgg yàlla rek ak yéen sosaram mhm. nee na damay bëgg a jug rek maanaam jël arme jàmmaar la ko ñooñu te sëñ bu jëloon arme ñëpp ay mhm. jël arme kon àddina dootul daal waaye nee na yonent bi sallallahu moo ma dëfal dalal ma ci ndigalul yàlla wan ma ci ne rek man mii nga xam ne maay sa jëwriñ ak ña nga bëggoon a bokk ca ñoom de daj nañ lii mbaalu ko raw te it terewul dañoo jéggale rek mhm. mu ne kon afawtu anil aadai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmata waaye na lastu adfaahu kon lu adduna yàgg-yàgg mhm. duma fipp mukk jëm ci ñoom mhm. loolu nag la digal taaliba yëpp mooy jàmm moo tax asalaamiya <laughs> tur bi dafay daal di tekkiwaat wax ji léegi nag ci biir loolu sëñ bi santaane ne kon dañ ma ci santale tey it wax ko nag ca bis ba mu génnee ndax di dem man na am yaa ngay xel yaar ndax li ngay wuti da nga ko amam déet mhm. soo dikkee nag amaana da nga xam ne am nga ko wala amuloo ko su boobaa la ca yàlla da ko xam moom nag bisub dem bi la ndax gis na ne bisub dem bi moo ëmb taawul mhm. lépp luy ndamul tey mhm. tax mu ne xarajtu yow ma sabti génne naa bisub gaawu euh, la ma ca euh, génn googu mu génn nga xam ne génnewul boppam dañ koo génne te yéeneem moo doon génn ndax li ko yàlla woon génn rek ay tax mu jot mhm. ci. fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. Mhm. ngir la géeli sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. am fu mu waxee génn naa. ñeenti fanu safar. loolu génn googu génnug baatin gi la mooy yéene ja moo génn. waaw rabi'a safar waaye nag du génn génnu saahir gi ñëpp xam. mi ngi door a jot ndigal fukki fana ak juróom-ñett ca la génn. Mm. histoire bu gudd la duñ ci dugg lu bari. Mm, mm. waaye li tax sëñ bi wooteeg cant sëñ Tamsir. ba xam nga ne képp koo xam ne da ngaa représenté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da lay jox mboolem médicament yi nga xam ne mooy faj mboolem amrad yépp <laughs> ko fi représenté tam. yàq maanaam ab yàqkat. am iblis. yàlla da lay jox mbooleem jumtukaay yuy tax nga mën a yàq. léegi nag yàqkat bi su amee mbooleem moyens yu koy permettre bu mën a yàq te defarkat bi amul mbooleem moom tam jum matuwaay yu koy tax a mucc ci yàq gee mbaa dindi yàq gi ginnaaw bu amee mhm. su boobaa kon yaa problème mhm. moo tax sëñ bi bi mu xamee ne iblis yàlla dooleen na ko mhm. moom jógu dooleen na ko moo ne woon yàlla fa anzir nii may ma man ma des fi ilaa yawmi yub'asun ba keroog gaa yi dekk nga xam ne bii may mbër danaa yàq lu bari yàlla ne ko fa innaka minal munzarin mhm. fa innaka minal munzarin mhm. waaw fa innaka minal munzarin mhm. yow bokk nga ñi nga xam ne bii duñ leen yàkkam duñ leen ciy bàyyi rek léegi nag loolu bi mu amee mu am pouvoir ci yàq bi mu amee pouvoir ci yàq nag sëriñ bi nag moom it xam loolu moom it ñaan yàlla tëbb ko kattan gu lu iblis yàq mu mën ko defar mm-hmm. wala boog sax nag iblis sax du yàq lu muy defar mm-hmm. ndax yàqu iblis lu garaaw la mm-hmm. du maanaam du du jot a yàq dara sax boobu ba mu koy defar lépp lu moomal boppam iblis du ci amu yoon ndax iblis lu ma yàq dañuy wax ne mi ngi mel ni yére bu ñu xooj ci asib mëneesu koo jariñooti bu fekkee nag iblis ay gaayam ba i bagaasam dañ ñoo yàq masalan tey mm. eh, bakkan ak ñoom bànneex mën nañoo ñëw yàq day mel ni benn taas mm-hmm. taas taas taas ci yére bi rek mën nga koo fóot jariñoo ko mm-hmm. waaye bu iblis xasee yàq moom dañuy wax ne moom yére bi ci asib la dugg mooy ko jariñooti mm-hmm. kon sëñ bi sax day wax ne moom iblis sax du far yàq bu ndax damay ñongal li ma yor ba nga xam ne du ci am yoon adxaltu nafsi wa jamia ahli fii jay bi afdali wara dil fadli sama bopp ak li ma moom lépp dugal naa ko ci poosub sallallahu alayhi wa sallam muy borom ngëneel léegi nag li tax moo ne la iblis jumtukaay bi mu bëgg a tase jamono fexe ba am ndam mooy jumtukaay yi fexe ba gaa yépp weddi yàlla bew fettirlu sëñ Tuubaa ñëw ne ko man de ñi ma moomal sama bopp te doon jaami yàlla ya dëgg dëgg dëgg loolu moom doo ko man ci ñoom mhm. iblis dafa am bis mu wax ak yàlla lancé défi nag képp kuy jaamub yàlla te jaare ko ci suñu borom mm-hmm. kere bi ko yàlla bewloo mu bew ci sababu mooy ndigal mm-hmm. mu ne yàlla fa bi ma aghwaytani mm-hmm. ah bewloo nga ma de maanaam génne nga ma ci kuréel bu baax sànni ma ci àll bi may wëndeelu waaye nag la aqudan na waat naa te dinaa firndeel te dëgëral li ma waat ne la aqudan na lahum dana jekki hmm. jekki gu maanaam jekki jongoru gu dëgër hmm. Hmm. sa jaam ñii ngir lan sa yoon wu jub bii nga xam ne ci la nit di mën a jaar ba mucc kenn dafa jaar ba mucc su ma su ma toogee topp gannaaw su ma toogee la na aatiyannahum danaa leen dikkee bay ni ay bayni aydihim danaa leen dikkee ci seen kanam ñi leen yaay du ngeen fi jaar wa min xalfihim danaa dem ca seen gannaaw bu ñu aneeree mbaa ñu gestu gis ma wa an aymanihim bu ñu defee côté droite man lañ fay fekk wa an chamailihim bu ñu xoolee côté gauche man lañ fay fekk hmm. ñu ne ko waaw mu mel ni dañ ko war laaj waaw loolu lépp ngir lan mu ne wala tajidu aksarahum shakirin danaa fexe bañ a ëpp ca ñoom duñ doon ay santkat hmm. kon daga de iblis moom waxul duñ doon ay jullikat duñ doon ay woorkat duñ doon ay xajkati mag hmm, duñ doon ay kat ndakate daal ay cantkat daal la bëggul nga am ko yow yàlla ndax gis naa ne bu nit ñi santul rek daa wane ne kon fàtte nañ la te buñ la fàttee rek jàpp nañ jàpp nañu ne boog kon weddi nañu la wala boog beew nañ buñ bewee weddi la te loolu loolu mooy tax ma man a am ndam moo tax yàlla dankaafu ne fa amma man taxe wa athara alxayata dunia fa inna aljahima hiya almawi koo xam ne bew na jël àddina def ko muy kër fàtte ma man yàlla jàpp ne li mu am mooyee boppam dong moo ko ko may comme di daloon xaaruun nee na ëllëg jaxim mooy sa kër jaxim waroom xam-xam yi ne ren saxar ak haawiye rek ñoo ko gën a kawe ci tàngoor sëñ bi nag bëgg ñun ñu bokk ci beneen kuréel ba mooy suñu lépp ñu di ci bàyyi xel yàlla su ñuy alal suñu jëm suñu lépp mu ne kon ñëw leen di sant ndax mooy tax nga dugg ci ñi bàyyi xel yàlla te kuy bàyyi xel yàlla doo féttir doo bew wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa waaw léegi nag sëñ bi ci la ci la ci la ci la ci la ci la wootee kon ni kuréel bu néew bi yàlla wax ne ëllëg yowmal xiyaam mm-hmm. ñoom dong laay xool seeni dossier gis ne ay santkat lañ mm-hmm. kuréel bu néew boobu damaa bëgg boo liggéey yàlla gis ko ci samaw nit mm-hmm. moo tax nag ma woo leen yéen samaw nit ngeen santale ma yàlla ba ña iblis wax ne ñoom la bëgg a dox seen diggante ak suñ boroom ñu am gërëmam mbaa ñu mucc yéen du ngeen ca bokk moo waral Euh, ñu ngi jàng dégg nga. Euh, hmm. yàlla euh, li mu wax nga xam ne day mel ni yàlla fekk na iblis ci bëgg-bëggam. Hmm. te dañuy wax ne iblis lépp lu mu mosoo wax ay nar la daanaka mën nga ni. Hmm. waaye kere bi mu waxee danaa fexe ba ñu ëpp ci jaam ñi duñ la sant dañuy bew. yàlla fekk na ko ci nag. ndax yàlla moo waxal boppam ne wa qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam ñi ñooy nekk ay santkat. ñu néew ñëw ñu nag teel sëñ Touba bëgguñu bokk ci mu wooñu ci lii kon sëñ bi moom fattal na iblis buntu booba ci waa këram yàlla it waxal na waxaat na wa jaal naa lakum fiha maayish waaye nag qalilan ma tashkurun li leen defal lépp ci ak dund it waaye ñu new ñoo ciy gërëm mooy ba tey sukkur la wax xam nga sukkuru dafa jafe ndax xam nga alhamdu mooy cantug làmmeñ koo xam ne yaa ngi ko dëxañ ci xol bi te xel mi daw jëm ci nga xam ne lii nga am yàlla la ko jox ki feebar ba tëdd ci laram sax mën nay jël kurusam jox alhamdulilah. Mm-hmm. waaye asukuru nag. Mm-hmm. moom mooy yàlla jox na la kartan. Mm-hmm. doole nga nungoo jël sa doole ji jaay ko yàlla. yàlla jox na la am xel nga jël xel mi màccal ko jëmee ko ci luy tax diine am diine am ndam. adduna jag. yàlla jox na la ay gët nga di ca xool lam bëgg nga di ko ca xool. yàlla jox la ay tànk nga di ca dox lam bëgg nga di ko ca dox. jox la xam-xam nga di ko joxewaat te li yiwén ci ngir yàlla waaye mu jox la alal nga nangu caa financé nag di ko bokk ak ñi nga ko war a bokkal ngir yàlla loolu mooy tentuk sukkur ci gàttal tentuk sukkur nag dafa jafe lool ndax ku bëggee mënu ko ku nay mënu ko kuy calculer nii mënu ko murid lii ñuy def nii bu fekkoon tey calcul la boobu moytuwul ñu bari duñ ko def waaye du calcul ndax amaana tey jii nga ne am na ci kër yoo xam ne démb mën naa am dañoo lépp lu ñu añee mhm. lépp lu ñu reere mhm. te la bu dikkee nga jàpp ni ñoo gën a riche mhm. lu tax amuñ calcul foofa sëriñ bi rek lañ jël teg ko seen kënam ndax jàpp nañ ne ci baaxuk yàlla bu ko nag moom ñoom duñu comme bu ko nag moom ñu nag kon seen lépp ginnaaw mu ngi maanaam ah, ñi ngi koy man dañ ko jox sëriñ bi loolu moo tax yàlla waxul waa kër yontu yàlla daaw euh, wala bokk niti daawut mhm. ne leen yénn waa kër daawut mhm. lii ma leen defal ci teraanga mhm. dama leen a sant ngeen ngeen ngeen def ci ngeen def ci sukkuru ngeen sant ma ci waxul i'malu ala daawuda jëfandikoo benn baat xam maanaam xamdan masalan déedéet dana i'malu ala daawuda shukran yéen waa kër daawuda fexe leen ba def nag cantu sukkur ci teraanga yi daane bu fekkee daal nattu naa leen ci ngeen sant ma ci ci wàllum jëf mhm. ñu néew ci ñu néew ci sama jaam ñii ci kër daawu dañooy sant mhm. waaye loolu walaa ba na ci ñëpp boo xoolee mhm. te loolu defe naa moo moo moo mujj dal ñu baree baree bari ci ñun sim nag loolu lay bañ mu dal ñu kon ñu fermer passe boobu te dañuy wax ne achaddu naas bala al ambiya summal amsal dañuy wax ne ki gën a tar ab nattu ci jaam yi wala ci nit ñi mooy ambiyaaw yi alayhim salaatu wasalaam bu ñu jàllee ka ca topp wala boog si génération ba ca topp ñu ne nag génération boobu bu jàllee ba ca topp ñu ne ba ca topp boobu nag kenn ku ne ña nga lay nattoo kem ni sa diine mel boo amee diine lool ñu nattu la kem nga am kem ko am diine lool boo hmm. mooy diine bu yemamaay ñu nattu la kem ko am diine bu yemamaay sëñ bi nag diineem daa yemamaayul moom dafa rëy hmm. dafa rëy lool hmm. Euh, léegi nag sëriñ Tamsir ñu dikkaat ci li nga xam ne moom la euh, sunu borom subhanahu wa taala wax bokk na ci liy man ragal ne ndakate cant sax yàlla mi ngi ci mi ngi maanaam mi ngi ci natt mi ngi ci natt ab jaam jaam bi ngir ñu xam ba xam ab jaamu bu yàlla dëgg la boo xam ne yàlla képp lay jaam hmm. bokkali bi ko dara ndakate yàlla da koy natt da koy da koy defal defloo benn examen te hmm. examen mi examen cant shukur la hmm. washkuru lillahi in kuntum iyyahu taabudun sant leen yàlla bu fekkee yéen li ngeen wax dëgg la moom rek ngeen di jaam sant leen ko ñu xool bu ngeen bu ngeen nangoo jël seen alal togg ci ñam wut cim ndox mu dagante leew ak yu mel ni ki noonu jox ko yàlla rek mm. su boobaa kon ñoo xam ne leen di wax dëgg la mm. washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun mm, ndax da yàlla dem na sax ba ne wa in tashkuru yardahu lakum mm-hmm. cantuk sukuru gi sax bu ngeen ci nekkee mm-hmm. te man rek tax ma far gërëm leen mm-hmm. te ngërëmul yàlla ñëpp di wut te te ci la ñuy xàmmee ndakati kuréelu bi yàlla bi nga xam ne ñooy al muflihun xisbullah euh, dañuy wax ne ala inna xisballahi humul muflihun ñàkk a cant nag dugg ci wa amma man fa amma man taxa mm-hmm. ca la ñuy ak wala tajidu aktarum shakirin mm-hmm. kuréelub shaytaan bi nga xam ne yàlla nee na al hum alxaasiruun mm-hmm. kon Serigne Tamsir ci côté boobu it dañuy gis ne tabarakallahu cant mi ngi noonu yàlla bi iblis waxee nii danaa fexe ba sa jaam ñëpp ma ne leen lan la ko yàlla wax inna ibadi laysa laka aleykum sultaan waaye nag illa man ittabaaka min al aabin lu dul nag ña nga xam ne dañ laa topp bokk ci ñi bew kon fa amma man taxaa dikkaan na di du gàcce wala tajidu aksarahum shakirin maanaam alxuraan léeg-léeg nga gis ñaari mbir yoo xam ne bii day wax tudd waadiyee bii wax tudd waadiyee mais boo leen dajalee ci fëx mo bi ñooy bokk menn maana maanaam ñooy bokk maanaam benn tabarakallahu mbir bu leen liiñe yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundam gi yëpp da ko sant keroog bi ko yàlla waxee ne ko inna fatahna laka fathan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara wa yutimma nicmatahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza defe naa lii benn bu ci ab jaam am rek cant war ca yàlla nee na la yow defal naa la fatxu al fatxu boo xam ne fatxul mubiin la dafay mel ni bi yàlla bindagul dara ak bim bim bindee ba noppi ak lay ñëw lépp la ca yàlla na mu ab jaam sañ koo xam lépp ci sababu góorgóorlu wala sababu mu neex ko xamal na la ko dara ump la fi mu toll nii kon foofu la baatin yem waaye nag defal la fatfu boo xamante ne bii tamit li yaxfira laka llaahu ngir ma jéggal la maa taqaddama min dambik wa maa taaxar li jiitu woon say bàkkaar ak la cay mujj lépp am nga mbaa yàlla mën naa ne ci lu la neex def jël naa samay xéewal nag desu desi dara desul lépp luy sama teraanga jox naa la ko jël naa la teg la ci yoon bi nga xamante ne bi mooy yoon wi nga xam ne moom rekk laa bëgg moom laa gërëm danaa la nag dëgëral dëgër dëgër lay loo xam ne kenn du la mën a gësam ba nga daanu. Mhm. danaa la dimbali dimbal lu dëgër dëgër. Mhm. rek mu tàmbali nag dinaa fi dinaa fi lay taadak. Mhm. dinaa fi dinaa fi de dañuy wax ne bu tegee ay tànkam. am na xadis boo xam ne al Mughira ibnu Shu'bata radiyallahu anhu moo koy nettali. ngir wax ko ci wàllu gàttal ko rek. boo tegee sa tànk nii bu tegee ay tànkam nii da gis ne maanaam tànk yi du ko mën a teg dafay dafay dafay metti ba ci dañuy wax sax tànk yi waaye même ay yoxoom su mujjul sax léeg-léegi aj ko nii tuuti dara ji day day dem ba ci wàllum santé day mën a menacé wu léeg-léeg mu xaw ko aj tuuti mujj mu waat ngir di am benn équilibre mm-hmm. loolu mooy waral xam naa yu mm-hmm. mel nii ak yooyu yëpp daanaka ay kii la yoo xam ne mm-hmm. duñ ci jaar ay parenthèse la euh, problème d'inter par euh, d'inter maanaam ah, ni koy interpréter rek la problème d'interprétation la donte am na yeneen i jàngat yu ñu ko jox ci yeneen kii yooyu amul solo li am solo daal mooy. Mhm. def na ko ba nga xam ne. Mhm. dañoo dem ba ñëwante ko ba laaj ko. soxna soxnaam laaj ko ne ko waaw yow ndaka nga mën a daje yii coono te yàlla wax la ne. Mhm. jégganal sa bàkkar yëpp. yu njëkk yu mujj defal la yii teraanga yëpp. mu ne waaw ana ku yàlla defal lu toll nii ci teraanga. nan la war a def. mooy rek afala yakunu abdan shakura ndax kon nag du ma nekk jaam boo xam ne damay nekk ab santa kon ba dëkk ci sant faaw muy sant shukuru gi ñu waxoon nga xam ne moo jafe mm-hmm. moom jëf rek moo koy man ragal mais nekkul yor sa kurus mm-hmm. dikk na mm-hmm. loo am ci alal génne ko fexe ba gan ñi moom bu kenn jënd lum lekk fexe ba bu kenn jënd lum naan fexeel ba gan ñi bu kenn wut mbal bu kenn indaale mbalaan moom sàngo maam boo gisoon gan ku ñëw sax indaale mbalaan mu sàngo lay teggin ci màggal gi mooy fexeel ba mbalaanam moomu nga fexe ba waxtaan moom ba convaincre ko fexe ba jël ko denc jox ko mbalaan mu ko gën buy dem nga boole mbalaan ma nga ko joxoon ak miim indi jox ko mu yóbbaale ku ko mënoon li li feeg yëggaguñ sax ci di envoyé mboolem junniy gan yu la war a dalal ci màggal mm. bu ñuy dem nga joxal leen paasu màggal bu leen yóbbu li fekk foofu sax cant ba tey des na mm-hmm. maanaam cant gi fi mu toll nii day mel ni ci ndorte ak jéem lañ nekk waaye dëgg-dëgg cant gi mooy ku war a màggal seeti murid yee lay jox seen paas bi lay indi booy dem ñoo lay jox paas bi lay yóbbu lépp ci biir cant gi la mm-hmm. li fekk yëgguñu it nag ci mm-hmm. maanaam ñun murid yi ñu dem ba war su ma nee murid yi maanaam mooy képp ku bëgg sëñ bi rek mbégam di sa mbég yaatu na xatut waaye nag ku dem ba jàpp ne am na ñu war it ñooña warlu ko téye ko it ñooña laa wax ne kon ñoom mm-hmm. li feeg demuñ ba yegg ci mm-hmm. jël lépp luy teraanga mm-hmm. lépp luy teraanga laa wax ginnaaw bu màggal gi jàllee ñu jël ko buub ko jox ko gan ñi mu nekk bu yóbbal ba tey ba tey ñi ngi màggal waaye ba tey yegguñ fañ jëm kon ñi ngi ci yoon nag waaye kon pour wax la ne cantuk sukkur lu jafe la mm-hmm. amaana nag yombal nañ ko ba jàpp ne moo ko xam du ñoo xam da gën a foor mm-hmm. ndax yàllaa ko moom te yàllaa gën a foor mm-hmm. waaye nag sukkuroo gën a metti moo gën a jafe ndax sukkur faaw a <laughs> génne sa poche dem defi toog rek naan dana baax dana baax loolu yoru ko de yéen bi dañu koo xam ne yàlla jox na la ñett ñeent yi ba sa diggante ak ñeent yam jàkkaarlool ñeent la yoo xam ne benn bu ci nekk dafa jàkkaarloog mbir mbir moo xam ne boo amee benn bi rek benn bi nga am daf lay permettre nga am ba ca des mu ne yàlla joxul ab jaam xéewal lu mooy ne wala boog joxul ab jaam tawféexi cant lu mooy ne maanaam ndool leen daf cay am gis nga boo demee ci yenn kutub yi di kutub tafasir yi am na ci ay aqwaal yu bari yu ci am masalan tey boo demoon ci Cheikh Abdourahman Jalaaluddin Suyuti rahimahullah daa gis léeg-léegi ci wàllum shukru googu ñu am am wax yu bari yu ñu ci wax am na sax ñu maanaam ci wàllum ziyaada boobu mooy la in shakartum la azidannakum la in shakartum su ngeen gërëmee yàlla waxul la in xamittum de la in xamittum daa yomb de yàlla wax ko de mm-hmm. la in shakartum la wax waaw ñi gisul di wommat leen ngir sant ma mm-hmm. ñi am kër yu bari jàppale ñu amul kër yu bari ngir sant ma mm-hmm. li fekk dému leen ba yegg ba bu ngeen dee ba yegg ci yooyu ba ngeen koy def ngir man ma yokkal leen seen moomeel yi mu gën a bari ñoom nag day am na ñoo xam dañu koy tekkee ne loolu topp yàlla lañ ci jublu mhm. waaye sëñ Tuubaa nee na moom ashkuruhu mhm. shukran yajurru sayda mhm. bishrin wala yajur ndax wi kay daa ci maraaxib ma nga njëkkoon sax ne ahmaduhu ala xurujin min darar wa kulli suin wa ala waxara fii nag mu ne ashkuruhu shukran danaa ko gërëm moom yàlla shukran ngërëm loo xam ne ya yajurru zayda mm-hmm. daf may daf may confirmer la mu waxoon ci aaya ba te mm-hmm. mooy xëccal ma nag dolli ko dolli ko waaye nag dolli ko gi dolli mm-hmm. xam ne nag du xëcc mukk ay pexe yu bon jëme ci man kon lim ci wax bari na waaye nag ñu cant rek lañ ca soxla woon mooy jaam bu yàlla defal sutura wala tawfiix ngay sant suñu borom defal leen dool leen loolu ya waxee yàlla la in shakartum la asidandakum ak mboolem taawilaat buñ ko mën a jox joxit baat bi xatut mm-hmm. kenn ko ne na ko déggee rek nga koy waxe waaye xatut mm-hmm. Mm-hmm. boo sante yàlla sa alal ji ngir yàlla alal ji da nga koy gën a am te sax nag euh, dafa am lu lu lu sëñ Tamsir lu yéeme lu ci am wax ji ba muy jeex euh, wala boog am na wax ju mel ni moom waaye dafa am dañuy wax ne ci wa istazana rabbukum moo jiitul ay shakartum euh, dañuy wax ne Euh, biñ koy nettali dañoo ne bu mu jàgg ñu ne in shakaru in shakaru am mhm. ñu wax in shakiru mhm. an ni'mata zaadahu min fadlihi bu ngeen santee yàlla ci xéewal gi mu leen defal mhm. zaadahu min fadlihi mu daal leen di dolli ci ngëneelam waaye nag la ca tegu mooy wa awsa'u lahum fi rizq maanaam yàlla tamit da leen ci yaatalal wërsëgam xanaa kon dikkaat na ci ne kon ndakate cant gi day joxe wërsëg kon ki bëgg wërsëg wu yaatu lool ndakate maanaam jël alalam def ko ci màggal Tuubaa gi moo ci gën a gaaw bu fekkee yàlla tax ak cant la sant la sëñ Tuubaa mu teg ci nag wa azharahum alal alamin wa azharahum alal alamin loolu mooy lan mm-hmm. yàlla yëkkati leen nag ñu tiim mbindeef yëpp mboolem santkat yi dëggal mm-hmm. foo leen fekk ñoo fay gën a am ñoo fay gën a am yokkute ci alal yi ci anam yëpp mhm. te lii day fir firndeel waxe sëñ Tuubaa sëñ Saliou Mbacké daan jot li radiyallahu taala anhu mhm. foofu ñaar dende mhm. kii fonk ko jël léppam di ca def su ma gën a yaatal kii fonk ko moom jàpp ne bu ci joxee ñàkk ba tax mu denc lim am baa mu ciy cof di def nee na ki ko fonk jël léppam def ca du deñ mukk di gis li muy tiime kaw ki ko ki ko fonkut mooy te lii xadis lii wala bu dul xadis da ngay wax ni maa maanaam mi ngi ci kutub yi waroom xam-xam yi wax te la jiitu sëñ bi feeñ jamono xanaa mhm. wa azharahum alal alamin nu leen ko mën a tekkee rek mooy yàlla defal leen mhm. ñu am xorom mhm. am bayre ba noppi maanaam yëkkati ko lool tiim ñëpp ñi nga xam ne defuñ ni ñoom ah, léegi it euh, la in la in shakartum la azidannakum dañuy wax ne qaala xaqun ala allahi ay yu'tiya man sa'alahu dafa nekk xaq ju yàlla gàll ci kaw mooy ku ko laaj mu jox la mhm. ud'uuni astajib lakum wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani mhm. kon fal yastajibu lii mhm. waaye nag wal yuminu biya ndax nag sartub nga laaj yàlla mu jox la day fekk nga nekk ku gëm yàlla waaye wa yazid man shakarahu yàlla dafa dafa bokk ci xàqam ku ko sant jumtukaay bi nga utilise pour sant ko ci moom mu yokkal la jumtukaay booba bu dee àll la mu yokkal la ko hmm. bu dee presse bi comme nii ngeen def nii hmm. mu yokkal leen ko yàlla ko def mu gën a hmm. yàlla nga dem joxe fa sa doole suñu borom gën laa may kàttan bu la nit ñi doon wër di la catu nga def yaramu ñoom duñ mën ceew dara yàlla la téyel say tànk wa yansurakallaahu nasran aziza donte ab jaam daa war di moytu wallahu muimun yuhibbu shakirin yàlla mooy xéewale te bëgg na lool lim la jox ci xéewal nga xam ne moo la ko jox nga delloo ko ko kon fa fashkuru lillahi niamahu sant leen yàlla te di ko sant ngir moom rek ci xéewal yi mu leen di defal kon dañuy wàcc kàddu gi foofu rek seen tamsir ba xam ah, loolu la ngeen ci tegal insha xool sedd na lool daa mel ni soo xam naa sama gars yi ma àndal ñoom itam seen xool sedd na mu ne daa yëg nañu waxtaan daa mel ni tubaarkaar la ndax dafa méngoo lool ak liñ jëm muy yoma shukru bisub cant te itam mu li nga wax mu doon lu jafe ndax toog di wax alhamdulillah man ko nga ko fii ba gannaaw gannaaw suba waaw donte nag kooku moom moo gën a màgg lépp waaye cant gii nga xam ne moom arakaat la ay yëngoo koy def waaw yëngu yëpp nag Euh, day maase yaram weeg mhm. poos beeg mhm. lépp rek dara du des mhm. kon loolu ku xam na ne lu lu màgg la ndax sëriñ bi ni koy waxee mënoon naa woote ne bés bi bu ñëwee def leen ci nangami nangami nangami nangam ci xeeti jaam yàlla yi xam te boobaa itam dana dëppoo ak ak ak bëggam moom waaye daa xool ne cant li wax sa biir wax ne wax xalilul mihbaadiya shakur gannaaw ñu néew ci jaam ñi ñooy sant te loolu iblis képp moo ko liggéey te sëñ Tuubaa moom la itteem mooy iblis jël li yóbbu fee moom mu jël yóbbu fe te lu mën am sëñ Tuubaa mooy am ndaw mooy am ndam ndax ayasa min la inde jeewali iblis is naa daytu bi yaawal yi kon moom iblis naagu na ci moom ba du ko yàqal dara mm-hmm. Mm-hmm. kon xam ne ñii li ñuy def dañ cee néew mm-hmm. te mooy jaamu yàlla gën a kawe te mooy saxal xéwal al Hasan Basri mhm. su mujj wala mhm. euh, Amar ibn Abdul Aziz mhm. nee na bokk na ci li saxal xiiwal mooy sant sa borom waaw waaye nag bu fekk <laughs> waaw waaw waaye nag bokk na ci li li yóbbu xiiwal mooy weddi sa borom subhaanahu wa taala kon baat bii sañ Tuubaa daal gisuñu baat bu ko gën a féete kaw gisuñu ko ndax doomu aadama lu mu mën a am lu mu réeréy bu ca santul yàlla loola amul benn solo waaye lu am lu mu néew néew bu ca sant yàlla yàlla barkeel ko yokkal ko mu jëriñoo ko ànd ak àlaxira kon tuwaatkàlla suñu basiiru ni nga indee itam waxtaan wi am na solo mooy fi tàmbalee ci sëñ bi maanaam fa mu tàmbalee moom ci dugg ci liggéey bi ci loolu yu bëggoon ci boromam ci daraja màgg joo ci yàlla ak itam ramm aw xeetam ak liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ni nga ci duggee am na solo lool macha allah waaye tam lépp dafa tënkuwaat ci alxuraan hmm. ndax li ñu fi lépp génnul alxuraan hmm. ak hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. kon sëñ Tuubaa daal euh, jot jot na jàngalewaat ko gën a xam ban ban gën koo xam nga xam ne moom lépp lu mu woote rek génnul yàlla génnul yonent bi te itam la gën a kawe nag lay woote buy woote ci la gën a kawe du woote mukk lu suufe ndax kon bu doon lu woote lu suufe kon lii du ci dem kon du ci dem ndax neen ba bay génn man ñëwuma ko yàlla yónni ba ab sëriñ ci imaan islaam ixsaan indëgala laa ngi ci yàlla tuwaat kaal macha allah kon sëñ bés yu sant nañu bu baax a baax di rafetlu waa bu baax jotaay bi mm-hmm. ci dalal gi mm-hmm. ak itam yaatal gi mm-hmm. ndax lii jotaay la yoo xam ne dañ koy waajale bis bu tedd boobu yi tudde ko 18 safar 18 kàngam ñuy xool ñi nga xam ne seen xam-xam dëppoo na ak xam-xam bu dëppoo ak njàngaleem sëriñ bi ci alxuraan ak hadis ak njàngaleem sëriñ ñu ñuy ànd ak ñoom ci bis bu nekk ñu dem jël ci kenn muy bis bu yàlla sàkk fii ba màggal muy jàll ñu waajale ko màggal gi ngir ngir leeralaat njàngaleem sëriñ ci na mu gën a selle ak na mu gën a jube wax dëgg yàlla kàddu yi rafet na te itam tege na ci yoon yal nañ ci daje ngërëmu sëriñ Tuubaa bis bii ñu dëgg ma itam ñu àgg ca jàmm ba lépp lu ñu ci yéene def ko ni ko sëñ bi bëggee kon day mel daal ñu ngi woon fii ci gaawaan doon ànd ak sëñ Basiru Cissé ci 18 kàngam 18 safar ci Assalaamy TV ak FM. waaw kàddu yi tàggoo yi de Serigne Tamsir moom xanaa sant yàlla rek ndax it dañoo amal taw tawfiq ci biir taw yi sëriñ bi yoo xam ne sëñ bi ñu ko jagleel boppam ndax sëñ Touba dafay mel ni dafa. bind maanaam benn projet boo xam ne lépp lu mu bëgg ay mbiram mel ni mbaa mu doxee ni mm. depuis suñ boroom mm. sàkk jamono ba addunay tukki mm. loola moom waajal na ko ba noppi ba ci fi mu toll nii sax bëgg a wax ci sëñ bi sax taxul nga wax ci maam bëgg cee wax rek nii taxul nga wax ci maam bëgg cee wax wax juy jariñ kenn ngir ëllëg sëñ bi fa yàlla boppam ci dogalu bi yàlla taxul nga wax kon dafay mel ni ñun bu ñu demee ba sañ cee wax ba wax ci mm-hmm. wax ji amaana mu mën a jur njariñ tàmbulee ko ci ñun ñu koy wax mhm. ma yaakaar ne kon loolu tawfeexi sëriñ bi la mhm. waaye nag tawfeex joo xam ne bii mi ngi ko jaare ci yéen ñu tedd ñi amaana bari nañu bari léeg-léeg ñu may soxla ci yu mel nii waaye léeg-léeg xëy na euh, yenn di kii yee tax du du yomb lool yeneen xat-xat ak yu mel noonu mhm. euh, sant naa yàlla mi nga xam ne moo ma boole ci tawfeex ju rëy ji ndax 18 safar 18 kàngam ma bokk ca ñooña def ko ci tey ci ñeenteelu fan ci xaratu yow euh, xaratu yow ma saba ci n'est-ce pas rabia safar mm-hmm. loolu yaakaar naa ne uh, ak tawféex la te itam am na ci mbir moo xam ne waxtaan nañ ci lu jiitu ngay ñëw mbirum biir la moo xam ne xam naa ne daal dafay mel ni suñu borom daal bëgg na ci liggéey bi kon ñi ngi sant yàlla moom bu baax mm-hmm. di julli ci sallallahu alayhi wa sallam waaye di sant Serigne Touba nag cant mm-hmm. goo xam ne amul fa mu yem waaw cant gu rëy rëy di sant it ak a ñaanal sunu sëriñ ba sëriñ Abdul Hakim fa mu nekk yàlla na ko ngërëm ngërëmul yàlla di di di di di gane si jamono june te ñun ñëpp mu ëmbaale ñu eh, di sant sëñ Tamsir bu baax démb rek sama wayjur yi ñëpp ñu ngi waxtaan ci yow mm-hmm. bi ma leen di yëgal liggéey bi di leen ci tàggu mm-hmm. ñuy wax sa taxawaay ak sa yiw ak sa bëgg xam-xam ak sa nangoo sonn ci lislaam loolu ñu ngi ñaan suñu borom mu gën laa dëgëral gën laa kartanal gën laa sàmm gën laa aar lafal la cat ba liggéey bi li ni joo ci am rek lu ko raw sax nga def ko ci te dajee ci tawfeexi sëriñ bi di sant Cheikh Mouhamadul Fadal Silla bu baax di ñaan suñu borom yokkal ko jumtuwaayam yi mu yokk lool te barkeel sëñ bi teg ci loxo lool nag ci biir ak ci biti ba muy yegg foo xamante ne bii dana kawe njortul rafet di sant mbokk yu baax yi nga àndal yëpp di ñaan suñ borom mu sàmm leen te aar leen te yiir leen te defal leen sutura ak sag liggéey bi yàlla wal denc luy tax jamono bu ci nekk waxuma sax yéen waaye yéen ngi yéene seen yeneen moroom ñëw ci biir ndax njariñ njariñ lu yaatu te rëy di ko ci am te la ca jiitu nag di tawfeexi Sëriñ Tuuba santax Sëriñ Muntaxa di ñaan suñu borom bàyyil ñu ko fi lool muy yeggalay naalam sant mbokk yëpp rek sant sama soxna su baax si ci biir yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ila marra oxra insha allah macha allah insha allah <laughs> tubaarkaal sëñ Basiru kon mi ngi noonu kon mbokk taalibe yi ñu ngi leen ci bàyyi xel ba Assalaamy TV ak Assalaamy FM wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaatu lasi fi kulli bisaar wa fi safar